asalaamaaleykum mbokk yi staan Allo Dakar TV man dalu dakar ma ngi di nuyu ci fi may tase yéene kaay yi aca ñu daal dem ci la tribune la tribune ñu def euh, diplomatie forte présence d'ISA l'investiture de Macky la prime américaine au Sénégal ñu da def ki nga xamante mooy Donald Trump ak son excellence monsieur Macky Sall ndax Macky Sall nak ku ne xamna ni mi ngi waaj a waye nak mi ngi waaj a changé nga xam ne gouvernement bi suma ma jógee ci la tribune damay da dem ci euh, li nga xamante ni mooy pop pop yene kay ñu def Dakar menace de pénurie d'eau fi mu toll nii ndakaaru kenn sangootul kenn toggootul añ kenn jàppatul boo julli da ngay tiim ñi nga xam ne bébé yi léegi seen yaay yi dootuñu sax yóbbu ci toilette ya ndax ndox amul da ngay jënd couche bi rek tapaat couche soo bëggee xam li ci ne xoolal li nga xam ne mooy

Elle est puissante. Bye bye.